Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité la cloche de notification. combat bi sama bakkan laa ci teg. sama leneen laa ci teg sama bakkan laa ci teg. ndax dafa am lu mu fa demee ci biir géej waay. mu dugg am lu mu fa def. ñu war a dajewaat maak moom. genn Pikine duggaat Pikine. waaw mais dafa war boo ñaar dugg na géej waay ñaata seen dugg na Pikine dugg na géej waay ñaata yoon. mais yow da nga kaa tegele. Ah, mais noonu la. dafa am loo bëgg a wane. incha allah bu neexee yàlla. te yàggatul dara. dina uteeg bi passé. ba romb ko dem. Hmm. bi di ngeen gisaat meneen Lac de Guiers. meneen Lac ah. maa ngi lay bëggee bu baax. maa ngi lay bëggee doom ndey yow tamit. Hmm. waaw di lay ziar baax a baax. combat bi kañ la nara nekk nekk xamagoo ko. non xamaguma ko nag. Hmm. parce que signature moo ñu fi indi. waaw pour wane ne affaire bi taxaw na. waaw. toogoon nañ ba ne woon dootul taxaw ndax coow bi amoon mais daa mel ne bi rek la woon. waaw alhamdulilah taxaw na lépp loo gis waxtaan la. bu boobu ñu woon terrain d'entente léegi nag yàlla def na ne trouvé nañ terrain d'entente samay papa samay nit waaw comme li ko mel ni comme sama papa Massata jàpp na ci discussion bu baax a baax a baax waaw ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ŋànk daal ñooñu waxtaan ak ñoom bu baax ñu am lu ma wax yaa ngi dégg ma toog ñu d'accord sur le terrain d'entente ñu fa seen bëre. xam nga combat bi lay xaar dafa métti de. <laughs> adversaire bi yombul. waaw baax na est-ce que adversaire bi xam na ne ki mu am yombul. ko moom. na combat bi bëgguñu sax mu yomb. Hmm. waaw te combat bi ci gàttanu yàlla. ah nañ bàyyi ba arbitre ne pip ñu xool fu wax di fu coow du jóge te xam ndax am géej waay la dem géej waay te ci kàttanu yàlla géej waay la jëm. jërëjëf la dëgg. merci beaucoup. Pape Massa damay ñëw wala bu ma ñëwee. mu doon ngaa ngi fi <laughs> la combat bi revanche la wala clarification parce que ñett daje ngeen daje benn bi jël ba la <laughs> jàpp nañ leerul beneen ba ngeen cóoki ba mu neex benn bi mu daan la ma tax ma ne clarification la wala revanche la. waaw ci li ñuy wax dinañ revanche la revanche laa jël si. Mhm. incha allah bu neexee yàlla. Mhm. la ngeen njëkkoon bëree jàpp nga ne que lu lu cuqee noonu mën na amaat. non day amaat sax bu njëkk ba la ñuy indiwaat tek te dina neex de dina neex trop ci combat bi incha allah. mais lu tax nga meree Eumeu bi foofu lu nga bëgg a ak moom laaj ba noppi soog a bëri moom lan la. waaw parce que booy xool bu ne la de kan moo ko fu njëkk a laalal suuf ñu ne moom la. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. moo tax combat boobu warul mën a yomb. Mm-hmm. combat boobu dafa war a neex sama diggante ak yomb de. fi Eumeu Sène jugee. Ah. dafa jugee ci défaite ko metti. Ah. jóge ci combat boo xam naam am na ca ndam waaye ni mu ko bëggee woon ah. amee wu ko noonu kon impérativement ndam rek. waaw xam nga da nga ne Eumeu Sène dafa jógee ci lu ko metti mhm. man li ma dal li ma metti mhm. woon ay temps mhm. moom moo ma ko teg. moom Eumeu Sène depuis lors depuis lors ko. déedéet mënu ma ko fàtte parce que da ngay xool rek man fu ñu waxee dama naan leen jox ma Eumeu Sène. Hmm. combat bu ma ñor la. mais te dama bëgg effacer défaite boobu noonu. mais est-ce que xeex ak ki nga xamante ne moom mooy Eumeu Sène wóor na. moom mooy kan yaa ngi doon expliquer ni euh, défaite bi nga njëkk am. da nga jéem a xeex ak ki nga xamante ne moom mooy Eumeu Sène mu nax la bëree dama juum hmm. dama juumoon boobu mais bii kenn du juum incha allah sànq de dégg naa Père Ali ci làmmiñu boppam ñuy wax lu mel ni sa diggante Ama Baldé tôt ou tard Père Ali ne de mbokk amatu ci combat boobu bés bu waree taxaw day taxaw loolu ci wax comme damaa ñëw pour signer contrat nañ bàyyi ba ma yegg ci lool merci beaucoup xam nga yow man sama xarit nga le fils de Diène finalement seen combat taxaw na. waaw combat bi waaw loolu moo ñu fi indi. waaw combat bi taxaw na incha taxaw na hmm. mais xale bu saf sap bu sap la bay Fall bi am bi yoon. waaw loolu laa bëgg Baye Fall bi bëggul lu jafe sax bëggul lu yomb sax boog xam nga li ma expliqué comme xale la xale bu saf la yàlla baax na man tamit de xale la te xam naa ni ay atam boo ci suma yaay li ci des du bari quoi bu fekkee maa ko magit li ma ko magee bariwul. xale bu saf nga wala. ah yéen xam ngeen ci dara <laughs> ndax ñëw naa fi ñëwaat naa fi. yow Baye Fall nga. ah man de Baye Fall laa moom waaye aw ma lu may tiit wala lu may calculer. quoi dina ci kóor gi neex naqari. waaw xam nga xam nga li ma ko mën a expliquer daal mooy. comme moom yàlla dogal na xam nga doon na topp di wax comprendre nga sunu borom dogal na nag combat bi taxaw na ah li ma ñaar laa koy dénk na liggéey. te góorgóorlu te bañ fay nekk nag naan ay suma papa moo ma téye ci combat beeg suma kii gone la li ma koy conseillé mooy gone la na jël ay initiative boppam bëre hmm. loolu laa koy conseillé dañ bañ fay nekk sax naan ay sam papa ma téye woon ak ay calcul yooyu amul sens quoi ci xale ko da ngay jàpp ni papa jee koy papa jee wala lay rek lay teg moom des fois. non non dama ko dégg mu wax loolu ci combat ma kii nu mu tuddee. ci combat ma coin su quoi bi mu jeexee mu ne suma staff suma encadrement ñëw may téye ma xam ne xale la quoi te comme xale la. Hmm. a ah, na gëm boppam buñ ko téyee sax conseillé ko sax nañ ko bàyyi mu dem bëre moom na jëlal boppam ay initiative yi. Modou Anta waru woon mën a gën a viser beneen combat ca kaw. Hmm. ndax fi nga jugee defaat rétrospective. defaat retour jël ci xale yi est-ce que du la jural benn jànq wala jafe-jafe ci sa plan de carrière. waa xam nga tey ku amul li la gënal am li fi sës Diène bokkul woon suma plan de carrière bu nu waxantee dëgg xam nga li combat bi ci man la yàggee woon boo xoolee am na beneen promoteur sax yu ko bëggoon mais yàlla dogal na xama ci man li ma doon xool du Diène xam nga mais bi ma demee nag ba am ma li ma gënal tamit suma staff ni ma ko def nga deux ans année blanche faaw nga tamit bëre comprendre nga loolu moom moo tax ma jël Diène mais Diène làmb boolewul xaalis moo ñu boole mais du palmarès du dara parce que moom booy sëy da koo jàpp daan ko man damaa daan booy sëy kon jéen xaalis moom moo ñu boole mais du làmm. bu la xaalis boole lan moo la war daan rek moo la waaye yow loolu ngay lijjanti yow Babacar naan ma ay daan moom moo la war a Lamine boog ay daan moo ma war ak loolu noonu jéen dama koy duma dama koy daan. xale bu bari doole la de moo daan taa. non man moom loolu man gisuma ko man. li ma gis doole te xale la aussi. déggoo déggoo li ma lay xanaa jéen xale la kenn werante wu ko. mais man tamit xale laa bu fekkee maa ko mag li ma ko magee bariwul mais man li ma gëm suma ma gëm-gëm nag laa leen di wax dinaa ko duma dinaa ko daan maa ko dàq bëre maa ko doole. ci yéen ñaar seen rungum daje. non suñu day mel ni xam nga xale bu jàpp ab. waaw mooy loolu daal jéen daal mooy loolu quoi. mooy baa ngi ci ginnaaw di wax de. kan ci non laay mais sax moo waroon a bëri jéen bu ñu ko tegoon ci yoon adversaire jéen moo nekk ne. kee moo waroon na jàpp jéen defal ko affaire. xam nga ni ma expliqué mais comme demee na noonu graal waxoon naa ko nag ne woon naa ko nag bëgguma laa freiné ndax da ngaa nekk sa yoon mais gëmul woon boobu li ko doon wax parce que xam ne jàpp nañ dama toog di wax nii rek wax ju neex maa ko man fii maa ko man fee jëm eh! ah? billaahi wa ma la caaxaan Diène Kaïré hmm? hmm? gëj a bëre. du la empêche ci dara. bëre mais man gëjuma bëre ay booy laa yor ikiri laa yor booy dañuy am ay combat toujours maay dem ci ñoom. man maa ngi dem di bëre. lu may bëre xanaa arène moo tax man la arène laa gëj a bëre mais du du du ay contact du ay waaw mooy la su ma rek dem contact may boy xam nga te ñun mooy loolu daal combat bi daal xam nga amul sax lu nuy waaj combat bi du lu nuy waaj xam nga jéen mii dama koy may coow amul confiance combat bi du combat ah. pour Modou Anta combat bi avantage yëpp ci jéen la am moom moo ciy siiw moom lañ ciy fay kase buñ buñ ko musta fay moom lañ ciy duma moom lañ ciy daan. su jën kay la amee ndam. bu jën. bu amee ndam non moom ngeen koy laaj. bu jën amee ndam moom ngeen koy laaj man sama ndam laa toog nii di wax ak yéen. parce que dama war a du sama euh, sama suma suma rêve nekkul woon jën man maa doon seen ay mbëri supérieur jën. Ah. parce que dafa am ñu fi nekk ñoo xamante ni xam nga da ne dañoo mën a bëri dañoo am doole dañoo am gàllaaj mbëri doon leen wóoy man ma taxaw fi man sel ni leen nan ma ko jox ah, mais joxuñu ma ko xamal li ma lay expliquer muy wut lu yomb a ah, man ñu jox ma jéen te man samay adversaire duñ jéen daa mel ni moytu boobu ba tey neexul rek non mais lamb ji loolu moo fi war a jeex dañoo non non dañu attends lamb ji dañoo war a boole ñu war a bëre comprendre nga mbër yi war a bëre lan la war a boole mais promoteurs yi ñoo ak yenn ki ñoo war a bàyyi ay jàppal tànk dañuy boole ñu war a bëre mm. combat bu ñu ko tegoon ci yoon du man ak Diène Kairé loolu yéen ñi sax xam ngeen ko no pa jàppal tànk sax xëy na moom mbër la moom mooy def soo am comprendre nga promoteur yi toog noonu ko mais dañ doon wax naan xam nga li may expliqué benn mbër ñimew ko avance am mu ngi traîner. Mhm. ñaata yoon man ma taxaw di wax ne nan ma ko jox. ñu jox la rek rek bu jàng. ah nan ma ko jox ko avance am di tourner. Mhm. benn nit taxaw ne nan ko ko jox. te nit kooku supérieur ko ci côté yëpp. mais moment ngay wax ne doo bëri ko lan moo ko waraloon. non ma ko woon boobu deful ay preuve yu tax man li tax man ma laaj ko ba tey li ma def rek rek defu ko man li taxoon ma laaj ko mooy li nit ñi doon wax naan avance am mu ngi tourner mu ngi wër ci dëkk bi mbëri di ko moytu ma ne kon nan ma ko jox man est-ce que jàpp na li nga doon wax ne xamoo ko moo tax man da man dama koo lijjanti man su ma génnee ci combat bi may dem xooli leneen man lijjantiwuma ko xaaruma ko xaaruma keneen ku dul moom ku ci bëréwul ak man ren di nga bëre ak man déwén man li ma gëm laa leen wax parce que ñii duñ bëre nee nañ ñii dañoo def seen coalition ñii woo waa bennoo fee ñii waa fee comprendre nga ma man Thiès laa la wax ah, guy gi doo leen bëre non guy gi ñoo bokk raison bi Thiès la dëkk xama li ma expliqué mais man lu dage foofu noonu ñëw Dakar amul coalition amul kii que ce soit ku ma dama lay duma dama lay daan. foo waajal combat bi. combat ban. bi combat bi dem fenn suñu kër laay toog entrain di ñëw tëdd na la récupéré jàpp suma njàmbur. waaw dafa samay samay euh, ko dama ko jël ngir bëgg a bëre rek. comprendre nga dama ko jël ngir bëgg a bëre mais du combat xamante ni nii man. dépassé na ma wala am na benn fu ma yóbbu quoi <laughs> non non man gisuma loolu. ok bëgg. waaw maa ngi siyaar. waaw ah, delloo siyaar biir waay. naka naka naka ngeen ñëwee waaw comme d'habitude rek. defar rek quoi. Hmm. parce que ñun dañ jàppoon ne sax euh, suba la. Hmm. vers dix-sept heures et quelques vraiment ñu wooñu hmm. comme que man dama toll ci defar. macha allah ci la ñëw rek. waaw jàpp pour bés bi pour mu rafet mais dañ jàppoon ne suba la ko d' accord d' accord mm. mm. mais combat bi yàlla def ni euh, taxaw na. Mm-hmm. adversaire boo xamante ne yàgg ngeen koo bëgg aussi. Mm-hmm. est ce que euh, bëre ki nga xamante ne moom mooy Modou Anta yomb na moment bi waaw xam nga àdduna moom euh, qui risque rien n'a xam nañ ne Modou Anta c' adversaire de taille pour Diène. Mm-hmm. donc euh, on va essayer de tirer, de tirer tous les étaux à notre côté.